Mm-hmm. waaye ñu ngi ko père. Ah, waaw naka mu. lépp jàmm. Eh, naka rek lay eh, nag. la noonu. waay sant gars yi. eh ana waa Lagros noonu. waay taa nag da raar nag. ala raar. non taa raar gars yi. saa yooyu toon ay dara dañ caa ngay buur nga naka rek sant yàlla. naka Diop bi. ana ñoom père Diaw. ñu ngi fa ñu ngi si jàmm. ak ñoom grand Diop bi. Kamu nag ñu ngi waaw Paa Camara tout le temps da lay laajte nag. ah man Mamadou rek laay jox di. non nee na nag yow da nga ko bàyyi. ah déedéet déedéet ko bàyyi nag lak bii moo amatul tuubaak. waaw waaw wax nga dëgg tuubaak yi ñoo ñëwatul si lak yi. dëgg la ah mais temps sax foofu dafa xaw a dëgër quoi. dafa dëgër dafa dëgër trop. man dama yaakaar kii la visa yi visa visa Macky Sall yi. waaw ah visa yi moom dafa xaw a. visa yi wadi noonu. Ah? visa yi wadi noonu. mais naka la ah, naka la naaj bi tàng na de père. waay tàng na kay. Ah? ñoo ngi ci naaj bi ah. ça va. naaj. alhamdulilah. waaw naka la nag. waay naaj. ana kaalis yi. oui xaalis baa ngi foofu. ah oui. yow grand yow war nga maa jox dara de. mais nag boo bëggee ma jox dara yaa fay jaar. non yow da nga fanaan jaar mu lay gis. Ah, boo demee doo am dara. xam nga temps yi turist yi doxatul moo tax. oui turist yi moom moo tax nag ma découragé sax. loolu tax nag man ma ñëw fii nag. fayal fayal fayal fayal. fayal fayal laaw eh, fayal bi. waaw père fay naa ko nag. Eh. ah boo boo taalee fii ma taal seen kër. waaw boo ko taalee ma taal seen kër. nga xam waaw père lu muy dikkee nii tey nag. ah yow loo may demee nii. lay demee nii yow boo taalee pakka bi non du ma ko taal boo taalee pakka bi ma taal seen kër. non du ma ko taal du ma ko taal. père ko nag yorul yooyu yenn yi nag. xam-xam sobe ku la jàpp-jàpp sobe ku la bàyyi bàyyi sobe buur. mbaar bi soxla naa si leneen lu dul sobe jógal jógal. père dafa naaj rek. alaalaala ah, jógal. xaw a ba sol laay doo ko àggale fii sa gel tubaab bi yóbbu ko feneen jógal. jogal du waaw mais man daal moo indi fii waaw nga dem fële Mamadou tawal moto jogal jogal mu tafala jogal bu mais wuy ma gaynde kañ a jàpp quoi paa waaye demal waay ah, rek yow man su ma la mënoon a def jigéen dama lay weccoo nga nekk ak jigéen benn yoon barki rasulullahi so taw aɗa wawi wiide allah oɗo ɓinguelam natti de o wona gorko yo won debbo o waɗanma ɗum debbo saabu lella ko bugu def yaako yakka nak dede yaako yak def la jigéen rek muur la nga dem sëyi jox ko éducation de waaw jox la jëkkër bu soxor di la dóor guddi ak bëccëg ah, lan suñu siiwul dina neex a defal ah Koumboy tawa a ah, ana yaawi tellade koye yo gaaw nga wattete koye so yawi mulil ko jam mi ɗon lan moye dépense abogol fof ana demuti aji tawane mbima ko wonno demuti aji tawane bina sago ko aji tawane dem nga kër Pamali waxoon naa ko ne dem ci Pamali Pamali waroon na ma jox dem nga ci Pamali. dem naa daay daay eh, yoruloo njëgu bant ba suba bu suba ma ma la sabu damaa génne kër ga ah, yoruma woon xaalis loolu la nekk problème. takkaay man musuma gis nga indaale pakka xaalis musuma gis bu weesoo sa tekki yi ak sa foo indaale si pakka bi xaalis wallam doon saka won ko mukki sam jottu gurgol ma ha jang to oɗo ardi ko moftini ko waye hol noon boo dencee xaalis nga dem livraison maska yi day dem commissaire Maysour Diaw kanko waɗi am commande 10 palaɗo na kaw <coughs> wako mu jëlti 3000 dépasse bi 2000 bi mu dencal makko bi ñëw ah? ko wax naa la weeru koor yi bàyyi jubay seere yi wax naa la bàyyil tubay seere yi. yaa ngi commencé màggate yëguloo ko. Eh, papa. yaa ngi màgg yëguloo ko. ah ah commencé di màgg nii xale yu góor yi. yaa sonam daa kerem di la xool fii papa sonam goote waay papa yaa papa. eh yow kam lan moo la jot ni da nga tux yamba wala da nga naan sàngara wala qu'est-ce qui s'est passé. léegi nga bàyyi ba deux heures ngay soog a nekk si paka bi di lekk fi. daa gën a métti quoi moo tax na. wukit wukit wukit wukit kerem moo wukit. wukit kerem moo tegal kerem bi. waaw du ma boo tegul yéen ñaan yëpp ngeen am génn pàcc. jox ma sama 5000. xool 5000. 5000 am. a 5000 bi mën nga ma abal ma jox sa tante dépasse nga may santal. waaw. soo ma jogee ma teg kere mi. so araan noonu muccat. so 5000 araane muccat. muccat barki rasulaay muccat. nu muccat kaaw doo ko muccaade fii yow. nen. ala kaw kaw awali kam kaw kaw kaw feeram boli kaw kaw wafam. pakama ñamata ɗo ƴettu pakama cinqmilemo ŋate cinqmilemo aratde cinqmilemo addat ɗum barki resolla kerem mbi doko mucci ci bari pakka bi waaw si naaj bu tànga bi bu ma lekkul ci pakka bi lekk ci ginnaaw pakka bi di nga ma jox sama cinqmille barki resolla sa mucci ma do kerem o tam yoɓe wiyam fan mataw wiyeɓe yo mbiye mbiyam faama mamadou haala ka gasi haala ka gasi mamadou ngay ñëw bi yi war a dugg xoolal yëpp tege na mutuelle yeeg yëpp tege na kon mburu ak ay lii li jëm foofu ñu tardel la rek sa laaj. yooyu amul solo saw il faut rek mu tardel la. jëla sa temps rek yow moom sa saw koor ngay metti rek jëla sa waaye saw li ma la doon wax rek waaw li ma la doon wax bi man dumbe waaw yaayam euh, sonal na yaayam ca fee mu ne. waaw a envoyé ko. man nak mënuma ko téy dama la koy ay wat nga intégrer ko comme ni ma intégrer ak xalé ci pack bi ta déret sama déret la mbay lolu jarul tak ak sa ta déret sama déret la jarul tak ak sa mu nek na ko xéne ni duma la ko neugul terebel la terebel la fa fa terebel bi yam day togn du sol yu bax man dal sais pas ba tax na dal mo indi ko nga yaral mako comme ni nga yara sa jarba ni nga eh, eh, yare pack bi nga yar da dafa tëribal. dafa tëribal. mën a fen. yooyu yëpp qualité yooyu waaw. mën a fen. waaw moom kay. sol yére bu baax. mu ngi noonu. du dina war wala du war. du du war. du war du war. mbaay yow kese si pàkk bi. yi jikkumaawu yu nii kam. mais waaw waaw bi du dee xanaa maa yee ne didoo didoo si pàkk bi doy nga. ba ci lan. mënuma jël keneen ku mel ni comme yow di ko dugalaat si pàkk bi. ah ah, ah, ah. yow saw. loo bëgg a wax foofu sax ak li ñu seq ñun ñaar mer ko ñun ñaar ci pàkk bi loo bëgg a wax foofu saw. léeg loolu ma si si yow. waaye saw a bañ. waaw ah, déedéet a saw. déedéet da ngaa nar a ba ay yow saw daal ba tax bu may wax ah, ak sa dal lan ngay eh, eh, ma bu ma amee problème yow wax na ko boo ma yokkee sama problème ma taxaw ci. lu ma la di dem di ñëw wax nga mel ni di dem c'est pas lay